Amadou Gaye euh, ñu ngi lay nuyu. maa yow yaa njiital fédération nationale de boulangers du Sénégal ñu am mbégte dalal la ci matinalu tey bi alors euh, monsieur gay euh, amal ngeen ndaje moo xam ni dafa jëm ci yoonal wàllu boulangerie ak ni muy doxee fii ci Sénégal ngeen sekkoon ko ak jëwriñ ji ñu denk wàllu njënd ak njaay mu jaboote leen lan la ñu mun a jàpp ginnaaw ndaje moomu. waaw jërëjëf waay maanaam mbir mi séminaire boobu dafa nekk rek. lu ñuy wax euh, genre maanaam euh, information mm. euh, boulanger yi ak consommateurs yi lan moo nekk ci benn décret boo xam ni président Macky Sall moo ko signé woon ci ci lu gaaw pour ni man daal su ma sañoon jafe-jafe yi nekk ci secteur bi boulangerie bi dañ ñun tamit ñu rafetlu ko ànd moom ndaxte lépp lu nekk ci décret bi ñun dañ ko d'accord Euh, bëgg ko mu nangul ñu ko loolu nag ba mu amee ñu ni kon euh, jot na nit ñi xam lan moo fa nekk euh, parce que dañu jàpp ni tey secteur bi dafa am lu waaye neex def lu ko neex lu la neex waaye gis ubbi fuur mu leen neexee jaay mburu mu leen neexee anam yu sellul di transporter mburu mi nu mu leen neexee dañuy daal loolu kon mënatul mënatul kon ni moo tax dëgg bi ñu ngi ko am si ñett ay ñaar ba ñetti ñeenti pàcc njëkk bi mooy naka la ñu war a nekkee boulanger maa naka ngay duggee si métier bi maanaam léegi kenn mënatul ubbi boulangerie te amoo lu ñuy autorisation autorisation bi aussi am na ay charte yu dëgër yu contraignant yu metti yoo xam ne faaw ñu tegu ko. kan moo koy joxe da ci jublu protéger askan bi. kër yi ñu xam ni moom la ñu ubbee boulangerie. Mm-hmm. pour éviter yenn catastrophe yi. moo tax léegi kenn nangatul ñuy ubbi mburu boulangerie ci ay pokus. ndaxte loolu mën na gêner consommateur bi ak yooyu ñu ni kon léegi balaa ngaa ubbeeti four sax da ngay am 500 mètres ak benn boulangerie te fa nga koy ubbi dafa war a am norme maanaam fa ngay jaaye mburu war na nekk au minimum 20 mètres carrés mm-hmm. fañ koy produire war na set yaatu yooyu yëpp boo ko amul kenn du jox lu ñuy wax pré-autorisation même loolu soo ko amee ba pare sax pareegul aussi ndaxte da nga dem environnement mu doolu jox benn këyit bu ñuy wax EC kooku moo lay mën a firndeel ni yow léegi mën ngaa ubbi mm-hmm. loolu yëpp boo taxawee lu ko jëbaat gouverneur mu jëbal ko aussi ministre commerce mu signé la benn numéro jox la agrément bi loolu moom mooy solo boobu si ndaka la ñuy duggee si kii bi. léegi autorisation bi mun nga ñëwaat ci ni niñ koy amee. waaw ñu ni ñu koy amee moom mooy li mu la wax rek mooy kayit yooyu moom faaw nga am ko. Hmm. Euh, boo ko amee pare moom dama ne ministère du commerce mooy signé décret bi. arrêté bi mais euh, bi nga xam ne moo lay jox sa numéro waaye. dafay fekk comité technique suivi bi nga xam ne gouverneur moo koy jiite mu joxe AVM. d'accord favorable. Euh, beneen bi mooy ñun boulanger yi nga xam ne dañoo am nekk ba pare dañu ñoo wax ni dañu war a teg si yoon maanaam dañu may délai boo xam ne bépp boulanger boo xam ne ñëwoo def sa déclaration li man man man maa ngi fii fii laa nekk lii laay def soo ko deful dañuy ñëw tëj sa four ñu la may délai maanaam mise en demeure. délai bi kañ la yem loolu lu si jublu. non bi moom Euh, mën naa wax ni bu dee dañu toppoon décret bi rek mais dafa jàll na mais Covid bee taxoon que yenn euh, yëpp mënuñu woon nekk donc décret bi trente juin la yemoon. Hmm. mais bi ñu demee démb séminaire bi yaakaar naa ni am na ay modification yu ñu jëm si kanam fii ak euh, fan nañ ko wax boulanger yi bi fan la fan la la mën a yem. Hmm. léegi lañ si jublu ni concurrence bi nga xam ne moo nekk si biir boulanger yi dafa war a dakk ñu muy dakkee mooy ñun ñëpp lañu war a nekk benn dañuy gis boulanger yoo xam ne mosu ñoo déclaré seen employé seen seen ouvrier yi. dina gis yoo xam ne mosu suñoo fay impôt te par contre dina am ñoo xam ne dañuy fay lépp ñoom ngeen bëgg a bokk même njëgu mburu xam nga loolu mënul nekk ñu ni kon léegi ñëpp war a nekk benn ñu ni kon bu ñu déclaré ñu xam ñaata boulanger moo am Sénégal mm. matériel bi nu mu toll employé nan la toll loolu moom lu ñu mën a ràññee la léegi ñu ni kon ko ñu léegi ñëw leen ni ngeen déclaré yéen boulanger yi ngeen indi seen registre de commence indi seen NIA indi seen kayitu yi ngeen ànd ak seen ouvrier yi ak IPRES social indi leen seen yenn contrat yi ngeen am ak ñoom ak certificat médicaux yi ak bilan yooyu yëpp dañ koy laaj boulanger bi pour mu ñëw def déclaration su dee toog nañu ay euh, délai bu jeexee tey ñu toog weer ñu la indiwuloo ko ko waa dañuy def sa fu comité bi day réunion te def fi woo léegi loolu moo wane rek pour wan askan bi ñun dañoo def lu ñuy wax participation pour naka la ñuy defee assainir secteur bi loolu yëpp bi ñu ko defee faaw kon gouvernement bi la nekk si décret bi encore mooy naka lay nit ki di jaayee mburu naka lay nit ki di yóbbee mburu bi production maanaam si ko transporté yooyu yëpp si dafa décret bi dañ ko war a def si anam yu sell yéen yàgg gis ni nit ñi da ngeen oto mburu da lay romb nga la loo tax nga ràññee oto bu xant oto bu boo xam ni setul loolu lañ ñu dafa war a dakk mm. la nga gis benn pousse pousse mu yore pousse pousse defal mburu mi des fois mburu mi day daanu ci suuf mu for ko dugalal ko dem yóbbu ko si boutique bi. mais laata ñooñ sax yenn saa ñàkk ceet gi ci boulangerie ci boppam lañ koy euh, ñaawloo. waaw loolu laa wax dama ne loolu même dëkk bi dafa wax ni dafa am condition yoo xam ne boulangerie bi noonu la ko war a mel. Hmm. su ko melul comité technique bi bu ko defee constat bi day tëj sa fuur loolu moom kenn parce que aussi hygiène dafa am solo moo tax loolu yëpp ba mu amee sax président Macky aussi gis na ni yaa dafa am contrainte maanaam la mu teg boulanger yi nee na diis na comme pour régler problème si seet boobu dafa dafa ne man booleel ak DER mu def lu ñuy wax dérogation exceptionnelle ci DER bi pour ñu jàppalee ay boulanger yoo xam ne am nañ jafe-jafe yu mel ni pour mën a respecter norme set bi wala seen matériel dafa yàgg mën ko changer loolu yëpp DER mi ngi si liggéey fan yii sax nañu am vraiment euh, communication boobu pour wax ko nit ñi lan la DER na naka def pour secteur bi. mais est-ce que suivi bi ak euh, supervision bi war dina am pour que ñu mun a respecter yooyu charte waaw loolu la ñu wax nii séminaire bi dem gars yi xale yi dañ boulanger yi dañ ni daal euh, li ngeen wax yëpp rafet na ndaxte dëgg ay kayit yu baax yu rafet waaye su dee ñu am appliqué wuñ ko rek amul benn sens amul benn njëriñ mm-hmm. léegi ñun boulanger yi daal dañoo takku nekk benn say ni lii su dee leer nañu duñ ko appliqué dana di dina juraat coow bi gën a rëy waaye coow bi day gën a garaaw que li fi am li fi li fi doon am voilà ñu ngi ñaax ministère du commerce bi nga xam ne euh, mi ngi def liggéeyam fi mu toll nii ndaxte ministre bi mun naa la biral ni euh, vraiment dafa lu ñuy wax accessible maanaam boo ko woowee jot ko. Mm. des fois mu woo la di wax di waxtaan ak yow si secteur bi wala chaque fois ba ay réunion weer bi na si woote ñaar ba ñeent réunion loolu kooku moom da koy def boobu ba léegi. moo tax kon kooku dañ ñu ko bu ngeen bëgg lii ñu mën a dox. faaw ngeen appliqué ko mu ni man taxaw naa pour ñu appliqué ko danaa instruire sama service yi ñu gën ko appliqué mais nag dama bëgg leeral ni fi mu toll nii du moom kese moo ko mën a appliqué boo gisee ñu defoon conférence de presse fan yële ni gouverneur yi dañuy nelaw ndaxte li tax application bi gën a dëgër gouverneur yi gouverneur ñoo ñoo ko ñoo ko yoroon manaam dañoo def ay arrêté pour wax ni convoquer le comité technique suivi du secteur de la boulangerie ñoo ñoo xam ne ñun si lañ bokk consommateur si lañ bokk police la bokk gendarmerie environnement ñoo ñoo war a toog di décider di joxe avis pour que ministère du ko appliquer loolu nag su dee nag ba léegi wooteeguñ ko sax signé guñ ko loolu moo taxoon ñu ñëw am na gouverneur yoo xam ne dañuy nelaw moom gouverneur Dakar moom ak gouverneur Saint-Louis ak Kédougou ñoom bokkuñ si ndaxte ñoom def nañ seen liggéey mhm. d'ailleurs sax gouverneur Dakar moom convoqué na suba sax comité pour gën a liggéey si yenn dossiers buñ ne kenn warutul jaay mburu ci boutique ñu ni kenn mënta jël boutique buy jaay mburu nga jege cinq cent mètres boulangerie buñ ne trois cent mètres entre ñaari point de vente buñ ne point de vente bi dafa war a set buñ ne yow bi moom point de vente bi bu dee boulanger bi moomu ko yow borom point de vente wala am agrément mais bu dee loolu yëpp kenn nga kenn kenn du kenn respecté kon nag boobaa dana mekk jur coow bu rëy rëy mais loolu xam nga ne monsieur Gaye kenn respecté wu ko mburu yi ñu ngi wéy di ko jaay ci yenn boutique yi wala ñu teg kiosque ci buntu boutique bi mais euh, même nit bi moo koy jaay donc cet gi tamit dafay euh, des foofu loolu moom nangu naa la ko li wax dëgg pire nga wax li loolu nii jamono ji may wax yow nii mm-hmm. kenn nekkul aux normes maanaam boulanger yi nekk guñu aux normes ñenn ñi boog laa bëgg a wax revendeur yi tamit ku revendeur yi distributeurs yi yaa ngi gis saa boo yeewoo kay pousse-pousse yi yaa ngi livré mburu ba léegi mm-hmm. am ñoo xam ne dañu saaku mburu mm-hmm. la ñuy jël mm-hmm. mburu mi di lang am ñoo xam ne dañuy jël muus mburu mi lem ko man daal mbir mi daal dafa yéeme daal mais est-ce que tamit mburu bu yàggee moom bu yàggee nag bu yàggee ñu bu yàggee nag moom boulanger danañ fépp uh-huh. moom mais mais moom mënul ñàkk d'accord mais est-ce que mburu am na tamit euh, bénéfice buy tax xëy na euh, boulangerie bi wala boulanger bi mun a supporter charge yi nga wax yépp maanaam couverture sociale IPRES ak yooyu ak kiy jaayaat tamit est-ce que dina ci am boutique bi par exemple lu ko may mu mun a engagé beneen nit di ko ci fay dama ne hmm. damaa bëgg nga comprendre que ni euh, ñun industrie lañ yore ay artisan blanc lañ hmm. ba réew mi dañu am lu ñuy wax structure du pain charge yi nga wax yëpp bu ma nee prix de revient du pain c' ñaata la mooy wane ne daf leen charge yëpp ba pare. maanaam léegi boo leen si IPRES boo si social wax ñaata emploi ngay jël wax la loola fay lépp mi ngi si bi. Hmm. fa laay waxee nag léegi loolu ñu ko defee ki di mën a jaayee cent nga laa koy jaayee. Hmm. am na ñuy jaayee cent dix. am na ñuy de fi kilo loolu kooku. kilo bi kilo bi waaye léegi nag loolu. daf ma da da da lu nekk mu baax loolu moo tax ñun la décret bi dafa ni dafa am lu mu bees lu mu créé lu ñuy wax norme loolu mosul am Sénégal. norme du pain maanaam tey ñëpp war a am poids dañu naan par exemple baguette mburu bi nga def baguette day nekk cent quatre vingt dix grammes da war a def poids bi nekk cent quatre vingt dix grammes guddaay bi gën saa néew ñun la di dix grammes soixante dix centimètres. Hmm. mais fi mu toll nii am ñoo xam ne boo leen peesee seen mburu tey mais du ma sax cent n'est-ce pas léegi bu ñëpp ñëpp bu ñu doon respecté poids bi respecté longueur bi respecté volume bi xëy na lu ñu mën a jaay mu boobu cent cent cent franc benn saako farine nga mën see génnee normalement trois cent pains waroo ko weesu mënoo ko weesu parce que la science est exacte mm. léegi nag yow nga jël si benn saako farine ba bëgg see génnee trois cent vingt pains trois cent trente pains kon kooku pois ba nga waroon def defoo ko. Mm. loolu nag ministère du commerce tey bu ñëwoon doon contrôler loolu tous les jours. tous les jours. bu hmm. ko doon def tous les jours jàpp naa ni kon problème boobu sax dana mën a régler. assainissement sax contrôle boobu tamit moyen lay laaj. gën a gaaw mais justement léegi a on en suppose que ñun dañ jàpp ni rek état am na moyen. Hmm. ndaxte ba ñuy togg décret bi dañoo toogoon ministre yi toog ñëpp toog ñun am nañ moyen pour appliquer le hmm. donc ñun loolu jàpp ba léegi ah. ñun jàpp ni ñoom nee am nañu moyen pour appliquer ko sur bi. kon nag kon bu dee amuñu moyen na président de la d' accord donc loolu mooy coow li. d' accord doon nañ fi dégg tamit njëgu euh, farine bi dana yokkam du yokku dana répercuté ci njëgu pain bi loolu fu mu toll. Euh, dama bëgg a leeral askan mi ni que njëgu mburu ak njëgu farine la ñuy wax dañ ko nekk homologation tey aujourd'hui am na comité boo xam ni moo koy toppatoo moo koy saytu comité comité technique bi kenn mënul yokk farine kenn mënul yokk mburu tant que tooguñu si kii boobu. Hmm. ay proposition rek la mën def mais pour nii. Euh, waxu yokk farine kenn waxu ko euh, prix pain aussi kenn yokk kenn waxu ko. d'accord li ñu toll fi mu doon ni rek mooy naka la ñu respecté assainissement bi ñun boulanger jàpp nañ bu ñu respecté assainissement bi coow du am maanaam nit ñu dañ si gis seen bopp waaye bu ñu respecté wul assainissement bi ah boobaa ñun dañuy obligé demande ñu yokk mburu ñu delluwaat si pëccoxoo bi. loolu mooy la ñu bëgg la ñu war a éviter. parce que ñun boobaa bu la nañ demandé ñu yokkal ñu mburu mi à deux cent francs. Mhm. consommateurs yi lan mooy seen euh, wàll ci xeex bi ngeen di xeex. consommateurs yi ñooy lépp ndaxte ñoom dañoo jàpp ne rek consommateurs yi ñooy am lu mujj li maanaam ñoom ñoo ñu war a dimbali pour que ñuy xool fu ñu jëndee mburu ak traçabilité bi ñoom lañu ñu liggéeyal ndaxte dañoo bëgg kuy jëndati mburu di ko jënd ci anam yu rafet yu set yu sell. nangu woo doon nangatu ñu jëndi mburu nu mu leen neexee léegi nag traçabilité li ñuy wax dafa am solo tey boo jënd mburu war nga xam fan nga ban boulangerie nga nga jël même boo demul ci boulangerie bi sax fa ngay dugg dafa jëndee mburu bi war nga xam ban boulangerie la parce que loolu yoon dafa ni dañ koy bind pour que consommateur soit informé beneen bi mooy fi nga jëndee mburu aussi dañ la war a jox emballage boo xam ne bu amul ay kayit bu amul bu amul ay bind hmm. emballage bu baax da nga war a ñëw xool fa ñu affiché mburu bi prix bi ñaata lay jar parce que prix yi dañu mburu yi dañoo buute te buute mm-hmm. am na mburu cent franc am na mburu fanweer am na mburu deux cent am na sax ñoo xam ne def ba mburu trois cent mm-hmm. donc loolu soo ko bindee wala nga def mburu céréale locale donc ko war a affiché nga ni prix baa ngi nii poids baa ngi nii loolu dañ ko dañ ko exiger boulanger yi léegi ñu mm-hmm. doon si dëkk bi pour informer consommateur parce que dañu bëgg mu am mu ne moom mooy xam lan lay jënd ak lu muy jënd c'est important. d'accord léegi bu gisee lu jaaduwul fan la ko mën a jooytoo est-ce que def ngeen loo xam ni xëy na dina fa mën a ñëw wala mu contacter leen pour wax leen li mu gis. dama la bëgg a leeral ni même ñun FNBS. bu ñu hmm. gisee lu jaaduwul ñu ñoo ko njëkk a dénoncé. bu consommateur aussi bu gisul lu jaaduwul aussi am na sañ-sañ woo ñu ñun wala mboo ministère du commerce mais ñun sax suñu bureau yi dafa ubbeeku te am na consommateur yoo xam ni ñoom xam nañ loolu suñu site internet fnbs.sn consommateur yu bëri danañ si jot. ay information danañ ci yónnee ay message am na ñoo xam ne dañuy yónnee dañuy félicité si liggéey bi. Mm. du ñaax nag naan attention di ngeen wax rafet na baax na waaye nag man sama koñ lii ak lii moo fa am. Mm. parce que lii kon loolu yëpp dama ko waxee nekkul sama koñ. lii jaadul sama koñ donc man aussi. dégg suma sama bopp yooyu yëpp ñu ngi koy gis mais bu ñu gisee information yooyu dañu ko informer ministre service régional du commerce bu Dakar par exemple mm. wala si ñoom la ñuy moo tax man la lépp nag si état la. Hmm. état bu jàppee ni mën na jàppale secteur boo xam ne six cent milliards lay génne par at boo xam ne trois pour cent si produit intérieur brut bi secteur boo xam ne gannaaw plus de six cent mille personnes ñoo si dund. ah loolu kon war na ko gën a jàppale. Hmm. donc loolu pour mu jàppale ko na defar secteur bi. Hmm. assainir ko pour que ñëpp gis seen bopp. jërëjëf Amadou Gaye euh, ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaa jiite fédération nationale des boulangers du Sénégal.